ñëw mooy parti boo gis dafa laaj yokkute ci mbirum militant réunion bii du réunion Thiès rek de dafa nekk réunion nationale 45 départements moo nekk Sénégal 45 départements yépp ñëw nañu amul benn département bu ñëwul bi ñu ñëwee nag dafa nekk réunion séminaire bu ngeen gisee suñu man na xam naa ne aw marasin xaw ma naa am de boo gisee am nañu ay badge am na ah, yow yaa ngi am badge solo kon ngeen ma sol <laughs> am nañ suñu badge am nañ suñu classeur am na continue bu ci nekk waxtaan nañ ci mbiru parti bi yëpp nan la ñu koy massifier nan la ñu koy financer yu yëpp wax nañ ko loolu moo ñu indi tey ci wax nga léegi nag ñoom li ñu wax fii dañ koy démultiplier bu ñu delloo ci seen base liggéey bi commencé jumtuwaay yi nga xam ne war nañ leen ko jox yëpp pour ñu commencé jot nañu ko dañuy dem rek ful ko bu ñu ko fulee tas ko ci nit ñi nit ñi commencé di ñëw ci parti bi. lan la ñu wax fii. li ñu wax fii mooy cellules yi war nañ leen installer cellule nag boo ko seetee mooy diggante juróom fukki nit ba téeméeru nit boo nekkee ci benn gox am na cellule yoo xam ne am na nu ñuy toll war nga mën a seet kan mooy ëmb nag cellule yooyu yëpp maanaam bu ñu jëlee par exemple ne euh, Wakhinane Nimzatt bu ñu amee lu mat ñaar fukki cellule war nañu seet kan mooy yore Wakhinane Nimzatt léegi nag bu ñu boolee communes yi nekk ci département Pikine yëpp ba ñu am seen section ñoom war nañu seet nag kan la ñuy jox département pikin fii mu nekk nag am nañu déjà ay nit ñoo xam ne ñu ngi def liggéey boobu te ñu ngi koy def liggéey ñu ngi koy def nu rafet donc dañu sukkandiku ci ñooñu pour fexe ba liggéey bi aw yoon ñooñu nag nga gis fii koo ci gis rek responsable nga fi nga jóge ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi ba liggéey bi sotti Euh, euh, mm-hmm. euh, mm-hmm. no xam nga xam tey moom foo laal rek mu ngi métti foo laal mu ngi métti boo naree nag di lim fi fi ngay laal muy métti mais doo ci gën demal ci jàngalekat yi jàngalewuñu wuñu parce que am na lu am na am na loo xam ne dañu dañ ko signé woon ak nguur gi. ay accord mais nguur gi topp ko demal ci ndongo yi xale yi ñoom dañu ko bañ sax ba dañuy jàppale école yi. mbir mi loolu nag ñu ngi jub si te am na ñu digge woon mu munuñ koo topp ah fii mu nekk mbir mi saf na sàpp ci ñoom ah. la. mérite la opportunité la parce que opportunité mooy yow nga dem foo xam ne sa morom yëpp bëggoon nañ fa dem te demuñ fa mais li tax mu nekk mérite mooy ñun ñoo ko war a am li tax ñu war ko am mooy représentativité bi ñu am assemblée. parce que wu réeruloo mbir ne assemblée ña fa ëpp doole mooy benn bokk yaakaar mais ñoom cëru nañu parce que jël nañ Ablaye Wilane jox ko poste bi mënuñu jël ñaar ñi deuxième doole ba du sax ëpp ñu fa ëpp ñu doole sax parce que ñoom fukk ak juróom-ñeent la ñun ñu fukk ak juróom-ñeent wante comme ñoom am nañu groupe parlementaire rek ñoom la ñu njëkk a xalaat ni ñun ñu jox leen ko ñoom ne ah benn poste bi des jël leen ko yéen mais jubóowuñu ñun leen comme kii góor la jigéen ngeen ñu war a jox mais ñoom bëgguñu ko parce que ñoom dañu jàppoon ne ka nga xam ne moo yore seen parti dafa joxoon ay instruction wax ne post bi dëkk sàngam la war a dem diw moo ko war a jël te diw boobu góor la yaa ngi su may waxee de ba mu ko defee nag ñoom mënuñ ko jël te nag comme euh, élection bi dañ ko war a def mënuñu fal kenn kii rek bañ a fal euh, jigéen gi ñu ne moom il faut que ñu euh, il faut ñu ngeen trouver solution bi ñu trouvé solution nag ñu ne comme groupe parlementaire bi mënu ko jël nañu dem ci non inscrit yi ñun ci non inscrit la ñu bokk ñu ne waa ci biir non inscrit yi nag nañu seet quand même ko fa ëpp taxawaay donc ñun ñoo fa ëpp taxawaay ñu laaj ñu ñu ne waaw comme ñun ñoo fa ëpp taxawaay ñu jox ñu joxe mais nag mu nekk lu am solo ci pur parce que CEDEAO ay dëkk yu bëri la te fu nekk tey te ci diaspora bi dafa am sax xam nga vote buy am ñay Mali dañuy voté ñay Gambie dañuy voté ñay nekk feneen ak feneen dañuy voté mais yow boo seetul ne pur euh, ki ñu fa représenté tout le temps dafay dem moom saa yu demee ci dëkk yooyu parce que siège ba Abuja la nekk euh, fële Nigéria mais ñoom duñ dem foofu rek dañuy wër dëkk yëpp léegi léeg ñu am séminaire fii léegi léeg am rencontre fële yaakaaroon ne tey bés bu demoon Mali am fa rencontre du toog boog au moins benn trente minutes 40 minutes woo waa Sénégal fa nekk ci hôtelam wax ak ñoom en tant que député du peuple parce que bu fàtte ne aussi député CEDEAO député PUR dafa nekk aussi député askan wi voilà donc loolu moom fierté la ci ñun.

parce que ñëpp xam nañ ne lu ñu yóbbu assemblée dafa jàll. donc loolu du lay li ñu buggoon mooy bala muy dem assemblée mais nit ñi xam la la ca nekk parce que yow nan ngay toog rek ne ci day am genn wàll ma am genn wàll loolu dafa juste trop waay jugement bi. am war nañ léegi jumtuwaayu xereñ yi jumtuwaayu xereñ xereñaay goo xam ne war nañu mën a délimiter surface yi fan la ñu toll lan la ci Sénégal am ak lan la ci Mauritanie am bu ko defee mu nekk loo xam ne c'est factuel ñu teg ko ni ci table ji def cartographie bi wax na yéen seen tracé fii la jaar lii ngeen ci am tant de mètres cubes wala yooyu la la war a mun a doon yéen lii ngeen ci am ñëpp gis ko mu leer yow tant de pour am man tant de pour cent mu jàmm na ñooy parce que loolu mooy indi jàmm ji mais boo bu ngeen toogee rek ne 50 pour cent 50 pour cent ñu dem ba ci biir seet ne du 50 pour cent 50 pour cent mais coow day am transparence moom moom la ñu bugg na mbir mi leer loolu la indi laaj ñu naan ko yow da nga xamul procédure eh, idi nañ ko jàngal procédure yow nga nekk fi premier ministre nekk chefu ministre yëpp nekkoon sax chefu ki nekk euh, président de la république tey ñu lay wax naan xam nga affaire bi nu muy demee nu muy ne loolu matul sax nga nekk ministre pour xam ko ñëpp xam nañ ne boo négocier ak pays yow bala nga koy mën a ratifier yow président bala nga koy mën a ratifier barke barke démb rek la ñu woote ay ay convention yu bëri pour ñu ko ah bala nga koy ratifier dafay jaar assemblée assemblée jox cutisam yow nga promulguer ko ratifier ko loolu moom c'est c'est le b.a.-ba du droit constitutionnel donc soxla nga nekk ministre wala premier ministre donc amul lu ñu koy jàngal moom d'autant plus que xam na ko moo tax demale mbir mi nañ ko def rek mu leer euh, loo xam ne dafa nekk diggante ñaari réew leer moo ci gën parce que ki nga xam ne moo fi nekk tey ëllëg du fi nekk loolu loolu ñëpp la ka nekk Mauritanie tey ëllëg du fi nekk te bu fekkee ne da ngeen def lu leerul ñagas ñagas rek lay indi ci diggante réew yi donc lu ñu def rek nañ ko def mu leer. voilà kàddu bi moo waaw kàddu leen di jox rek mooy euh, nañu fexe ba ñu jënd seeni carte parce que jënd seeni carte moo ñu bokk ci cellules yi. fexe ba pur comme ni ñu koy réclamer rek nekk parti bi gën a ëpp solo ci Sénégal te loolu dañ koy wax rek fu ñu ko waxee rek nit ñi commencé muñ xam nga boo waxee nit ñi muñ dañ amee kii lu muy wax nii mais ñun li ñu wax dañ ko gëm dafa nekk loo xam ne lu ñu gëm la tey gis nga gars yi bu ñu génnee fii fii ak weer wala ñaari weer feedback bi bu ñu ko amee di ngeen xam ne pur nekku fi rek di di kii déedéet ñun du ñu def ay tournée foya foya yooyu waaw du tourné foya foya duñ ko def de dañuy dem ci militants yi wax ak ñoom waaw te yaakaar ne militants yi bu ñu waxee ak ñoom ñoom it dinañ ñëw ànd ak ñun. xam nga PUR c'est c'est le parti boo déggee PUR dañ ne parti de l'unité et de rassemblement parti mooy li tax mu jóg association la mais dafa nekk association bi spéciale li tax mu jóg. moo jël nguur gi nguur yi nag bëri na président mu ngi ci député mu ngi ci ñun am na am na lu ñu am di du noonu bu ñu dematoon élection parcelle de pouvoir boobu ñu am di voter ay loi du ñu ko am du noonu collectivité locale yi nguur la aussi nekk maire wala nekk euh, conseil départemental loolu aussi pur soxla na ko donc du am benn élection boo xam ne dina ami Sénégal pur nekk fu te demu fa d'ailleurs loolu bu fekkee ne élection am na sax te pur demul nit ñi war nañu poser seen war nañu wax xalaat yéen def ngeen élection nekk quatrième de façon absolue nekk premier de façon relative élection am du ngeen fa dem loolu mooy lan xanaa boog ay député rek ngeen soxla woon yéen woon ngeen ñu ne mun ngeen yore réew mi élection présidentielle jot na ngeen du ngeen fa dem ah loolu xaw nañoo jàqale euh, population bay wax de loolu tax xalaatuñu bañ a dem élection mais élection lan ngeen fa yaakaar parce que ñu ngi fàttali que donc ñëwee ci campagne législative. oui vous aviez dit da ngeen a bëgg un groupe parlementaire à un moment donné ensuite une majorité. finalement vous êtes retrouvé avec 4-5. oui aujourd'hui 3 hein pas 4-5 day 3. donc c'est juste pour dire que. Mhm. le nombre vraiment wàcc na wàcc na. oui fi ngeen fixé woon seen baax. oui oui aujourd'hui on va vers une élection présidentielle. oui vous attendez quoi et avec quel calendrier. oui oui mais xam nga xam nga xam nga loo gis rek c'est relatif yow xam nga ne li ñu jóge du élection li ñu jóge daf dul élection nit yi jëluñ seen carte sàcc nañ élection yi loolu leer nañ foofu loolu mooy question bi danga may laaj ndax non élection yi amoon li amoon du élection parce que fichier amutoon mais c'est clair mais je vous dis donc c'est proportionnel c'est simplement proportionnel au fait que les élections ne se sont pas bien déroulées. Si les élections avaient été organisées de façon correcte, mais on aurait peut-être multiplié par 4 ou 5 le nombre que nous avons. C'est aussi simple que ça. Et regarde, les autres n'ont rien aussi. Donc nous, relativement, nous, on est quatrième. Ce que nous avons dit, mais on l'a maintenu. Nous sommes la quatrième force de façon absolue et la première force de façon relative. C'est parce que simplement les élections ne se sont pas bien déroulées. Les primo-inscrits C'est ça la chose. est-ce que toutes Est-ce mais, mais non, mais, mais non, mais non, c'est-à-dire. Non, non, mais c'est-à-dire ceux qui l'ont fait, c'est pas le pur. Ceux qui ont fait cette mascarade, c'est le parti au pouvoir. C'est pas le pur qui l'a fait, c'est le parti au pouvoir qui l'a fait. C'est pourquoi d'ailleurs quand ils ont... Quand, c'était en Wolof, hein, je dois parler en Wolof, non Voilà. Alors, parce qu'il ne m'avait pas posé la question là en français. Voilà. Maintenant, je, je connais en français en Wolof. Ah, ah, ah, Très bien. Alors, c'est pas, c est, c est, je dis simplement que la malorganisation des élections incombe, n'est-ce pas, au pouvoir actuel. Ce sont eux qui ont fait cette mascarade. Maintenant, la question que vous posez, ils vont continuer à faire cela. Est-ce que vous allez... Non. Mais ils n'auront pas l'opportunité

Avec un candidat du parti. Avec un candidat du parti. Non, le, je veux dire, quand l'opportunité se présentera, mais vous serez au courant du candidat du parti et le PUR aura un candidat.